balak sit pat jël jël ko yàlla jël ko ko ii gar nga foo nga de dé on peut dire reste pour votre tenue ici yow lii lii lan démissionné pour lan da nga jaay gi sax demal demal demal rafet demal amoo xaar waaw kay très bien waaw am na kenn ok merci waaw baax na baax na baax na mën ngaa def ay ca jóg leen tribunal pour waxtaan la wala pour lan la déedéet lettre de démission la indi neen da jaay bisaab mën naa dem jërëjëf merci lettre di kaba da ko mën na yokk jërë ngeen jëf toog leen ana yow on commence Le turbinat a eu un cas, c'est le cas d'un professeur et son élève. Il s'agit de El Hadj Thiam. Alaaji Dramé et Aïssa Faye Araba. jógee der ñuy muuru xool ko xale bu ndaw ah, eh, eh, eh, une petite fille de rien du tout eh na dañ yow sa na dañ eh borom portable yooyu di chinois nan nu may wala man nangu portable toj ko léegi

danu la tegee pour nga nekk un éducateur nga nekk un éducateur de plaisir di doxaan say élève balaa may ñëw ci yow yow eh bayu ndëpp yow laay waxal sa muuraay bi ngeen di yàq dari ñuy muuru ñuy muuru dañuy muuru ngir diina ji muurawuñu pour trafiquer ay góor xam nga kook taxaw naa ko bu baax noonu la seen mbir demee monsieur le président ngay muut muutu noonu mel ni seku yamal benn place eh, yamal benn place te nga wax safee saw na ko denc ba génn loolu laay déglu. maa ngi wax ni lépp lu ma fi wax dëgg lay doon. Mhm. dëgg la fayit ci man lañ ko jëlee. eh eh sur place sa joo yooyu tee ko. président man dama xamul prison. dama ne nga tee sa joo yi yow dëgg la fayit ci man lañ ko jëlee. waaw ci yow lañ jëlee feuille fluide yi fluide. fluide yi baax yi ci yow lañ ko jëlee. ci man mii lañ ko jëlee boo waaye kenn joxuma ko ku di sama professeur mii moom moo ma ko jox. Eh, moom ah. mii moo ma ko jox. Eh. mais waxoo dëgg. Eh, yow laa eh na nga nopp ma laaj. silence. continue continue madame continue mademoiselle. te dara waralu ko. ndax génn. Ah, looloo tax mu jox ma faytu. waaw waaw yow yow yaa yow yaa mën a. Eh, eh, eh. yow yaa ma ko jox yow mi yow yaa ma ko jox yow mi yaa ñàkk sama at. yow yaa tax man ma ab prison yow mi yow yaa ma ko jox. moo moo moo moo boo jooyee pare nga wax man boo koy seeti doo jooy da ngay ree kànc nga nga naan da ngay jooy ñàkkatu fayda bi fii jooy génn wala fi. boo koy seeti ni sot sot këtt ci roobu woobu da ba dem waaw eh nan la mbir bi demee yow nga naan c'est faux maa yëkkati sama loxo wax ne lépp li ma wax rek dëgg lay doon nan la demee man professeur physique chimie la physique chimique mooy la njaakatu mooy ñu waa demal physique chimique waaw kii sama élève la waaw elle a tenté de choses avec moi mais mun munul dem maanaam dafa tenté daal pour mbaraan la nga lànk daal. mënul doxul. Ah, c'est pas vrai c'est pas vrai. mais laisse-moi continuer s'il eh, eh, la. bu mënul jóg ma ñam nga jaxatu ba ñëw sa pa sa kanamu téeméeri at bi nga yor. boo eh? xool xam ni yàgg nga fi yow ma nga pare ma nga pare. joxeel bu baax joxeel bu baax continué yow monsieur. eh continue. sama élève la man maa koy jox cours ñëw na fukki yoon sama kër pour euh, comment dire ay euh, pour ma jox ay euh, épreuve corrigée ma na ko duma la ko jox tentation bu nekk def na ko nag ma ne ko génnal sama kër génnal sama kër ci biti fi mu jëlee fooy corrigé nag man xaw ma fu mu jóge moom nan ne ko wax moom man xaw ma fu mu jóge de moom ne la ko wax waaw. nee na yaa ko jox fooy corrigé yi joxoo ko. dara laa ko joxul. monsieur le président moom mi moo ma ko

waaw ah yéen sax amu leen jom ndax fan yi sama aj da leen bëggoon dàq ngeen ñox si dem ca sëriñ ba <laughs> danoo daw da ngeen na yokk ba ca sëriñ ba yéen bu ngeen naree def dara kay ngeen commencé dem sëriñ ba waxtaan loolu dinaa ci ñëw après ñu bëgg leen dàq ngeen dem ba sëriñ ba toog gis naa leen ñu toog naa sëriñ bi dimbali ñu rek ngir yàlla boo ci waxul a ah, eh, eh, man du ma xale dama tontu de dama lay ci kanam nit ñi léegi-léegi day mel ni rosi bu dog noonu eh. ah, ci à non fan yii nag wax dëgg yàlla tee à l'aise mhm. tas tig na la. waaw merci xam nga sëy da lay waaye tas da lay jig jig na la. Mhm. yow man yow mënoo takk jabar yow sa feeral wax nañ ko seet ki jaasi la. lu leer naa la ko. ah waay kon ko wayal. tee à la na. billaay sama kanam. waaye ba après ñu réunion la tee à la parole dama yàkkamti. merci monsieur le président merci sa Rosa ah, baax na. merci maa ngi lay nuyu. nuyu ñu nga toogal monsieur le procureur nuyu naa la. met nuyu naa la. maa ngi nuyu waa tribunal bi toog. mais monsieur le président xam nga lañu war a wax mooy prof yi nga xamante ni au lieu ñu jàngal seen élève yi defuñu ko lu dul di leen doxaan. parce que bu buñ la jëlee jox la xale pour nga jàngal ko la mais pas pour nga koy doxaan. wallaay ndeysaan. dañ la jël ay sa fay jox la ko teg la ko ci ay loxo yow. nga war a def ci moom éducation war ko sol xam-xam amoon lenn loo koy def lu dul nga koy sol ay doxaan di def ci doxaan boppam benn point deuxième point monsieur le président moom moo ko jox fuite bag yi parce que daf ko tenter pièce benn may ma rek ma ñëw moo ko invité ne ko ñëwal ma jox la ay cours ay sa fay dem mu ne ko temps yëpp maa ngi lay topp mais nungu woo maa jox sama réponse te question réponse mun na ko mettre. seulement ak yow loolu mi ngi koy doxaan mu lànk mu lànk te sequma ak yow loolu. Eh, may nu dañoo nekk ci programme bu wóor wóor. boo deful nag li ma la wax. dinaa la tànte pièce te bis bu ma la tàntee pièce dina jàpp. dëgg la Aïssa fay na ko du mën ak yow. man jàng la ñu seq ngir yàlla jàngal ma boo ko mënul nga bàyyi ma mu dem jël fuite de yi dugal ko ci saagam monsieur le président loolu rafetul kii xale la ah nekk ci kër yaayam doon benn doom di jàng na ko jox xam-xam bi moo gën mu ko le président jërëjëf eh la parole yow wuy ma waxoon naa tribunal bi du affaire ay ay ay ay sañte sa jaaro bakkan bi nay daj yaa ngi dégg li ma la wax nga doo doo doo doo nit simple. waaw mais boo ma ne woon jaaro bi neexu la du ko def man yaa ne ma jaaro bee lay daane. kañ laa ko wax. ah daane waaw na tuma ah. waaw. Ah. wax waa xedde am na. merci votre honneur tous mes respects. cher procureur nuyu naa la maître Kabo maître Diallo. cher public maa ngi leen di nuyu bon man je ne vais pas aller par quatre chemins votre nar. quatre chemins dafa am fii. maanaam du ma sori ci wax ji. Monsieur Ba est un professeur digne de son nom. ku xam l'éthique et la déontologie. professorale. Uh-huh. daf ko xam parce que jàng na ko. déontologie pastorale. bu ñu amee tey loo xam ne dañuy topp du moom la ñuy topp mais c'est son élève. Uh-huh. parce que jéem na ko daw fu ne. et c'est elle qui l'a cherché. dëgg la professeur boo xam ne day. dem ba extérieur di fa jàngale. Ah, moom mi dañ koy jël fu nekk. muy dem di fa jàngale. may nu may nu dañu concentré ci wax fu ne lay dem. Mhm. ku ne xam na ne ku roy ci moom di nga nekk un bon professeur. parce que dafa xam li muy def. Oh. jàng na éthique xam na déontologie du ma ci sori nag maa ngi lay bàyyi nga def sa liggéey parce que xam nga ko. <laughs> tu sais tu parles très bien. merci c'est gentil bu fekkoon xuloo maak ay yooyu nga leen di jottali parce que tu parles bien. <laughs> merci de ta part tu as la parole madame. merci monsieur le président dama la jaawale ah. monsieur le procureur tu as la parole. qu'est-ce que vous avez dama ni ndaanaan tu as la parole bul bu jéem a gëstu li may wax bàyyi soir ah. ah merci monsieur le président ok. oui. Maître Diop. quand vous avez un dossier ci seeni loxo xam na lan la. vraiment. votre propre cliente a elle-même dit dans sa propre bouche moom moo ne kii faram la. dégg nga lii. jaw nga ne kii da ko yàgg a toog yéen a ngi jiwaat loo benn secondo Maître Ndiaye Dramé mii ngay tagg tey je vais un exemple yu wan du moom ki nga foog je demande à la barre mademoiselle Khady Ndiaye mi nga xam ne ci école même bi jàngale fa lay jànge ay wa Khady Ndiaye na ko dal wal muy xullee mel looy bu teel a yeewu noonu <laughs> moom moom moom kii xamu nu mu tudd Khady Ndiaye mademoiselle Khady Ndiaye. maa ngi yëkkati sama loxo di wax ne lépp lu ma fiy bëgg a wax rek. ay wan na ko daal. gis nga professeur Ba mii lépp luñ ko waxal rek moo ko def parce que man mii la njëkk a. fii liggéey ko ay la. may ma eh, eh, may ma soo bëggee ne la wala nga sonn nga ñibbi. laaj lu xadar ban bay ba nga fanaan màkk sama new ci lool soo mënul liggéey nga ñibbi fanaanal màkk nga naa ma. kër Medina Ñaas waxal yow ba nga nelawaat man Maguette Ndiaye c'est monsieur Dramé. Dramé ok. allez continuez s'il vous plaît. continue yow. on vous écoute. professeur Dramé mii lépp luñ ko waxal rek moo ko def waaw parce que man la njëkkoon proposé lii ba ñëw jox ma fuite bi. Ah. yaa ngi dégg. waaw attends eh, nga déglu ma. Eh. la nga bëgg ci man. voilà bu daraame la nga bëgg ci man. daraame daraame. quest a nga bëgg a. tais ñu pare. nan dam yow. yaa ngi dégg. waaw. ba mu jëlee fit bi jox ma ko. waaw ne ma nag à ah, une condition. condition maanaam ma ko condition. waaw mu ne ma waaw ma ne ko léegi condition bi ni muy demee. waaw mu ne ma da ngay ñëw ñu dem sali pour une semaine. <laughs> du ma xool. xam lu baax. yaa xam lu baax. eh Xadi may ma ma savouré li nga wax yow ngay mbàkk dëgg dem ban Saly. ñu dem Saly aka gudd. gis nga ba ma nee pour Saly. ba ma ko tëggee mbéj. élèves yee ma jox waaye dama ko doon gaañ. merci mademoiselle Ndiaye. merci beaucoup. yaa ngi dégg ma tëgg ko mbéj mu xam. ah eh, eh. ma génn teg ko mbeñ mu xam doy na jërëjëf danaa proposé sali pour jox la fii yi nga lank waaw yaayay dama toog comme mbeñ nga ko yow ndokkale jërëjëf monsieur le président ñaw ñam nga de <laughs> mais man kii mbéju ma eh. kii lu mu fi la dara amu fi man nga noppi wala mënoo noppi <laughs> s'il vous plaît may ma rek je pose une question man nga noppi wala mënoo noppi dafa mbéjul dama ne ndax man nga noppi wala mënoo noppi ñàkkatu fayda bi kon du yow ba nga président. Hmm. monsieur Dramé bi taxaw fii tey par exemple. Hmm. man li ma mënul concevoir mooy comment un professeur lan la mën a doxaane élève am yow da nga war a jàngal yow éducateur nga exemple nga war a doon bu njëkk jàngalekat mit la woon mais léegi mënoo différencier kiy jàngal ak ki nga xam ne moom la ñuy jàngal jommul leen seen élève yi ngeen doxam ba pare jël ay feuilles corrigées di ko jox ay élève élèves. dégg encouragé ko sax pour mu jàng dimbali ko sax pour mu doon ëllëg dara. ci réew mi le président faites appliquer ce qui est de droit merci beaucoup. ah jërëjëf xam nga balaa ma ñëw ci délit bi nga def sax yéen yéen dèjà da ngeen noo yab ndax yéen at mi ñaari fan ngeen ci jàngale grève li ci des lépp ba pare di laaj payoor waaye bii ñam ngeen de <laughs> sama waa jeey naan dama leen di dàq ngeen yokku ba Touba ñi jaar Tiwaawan ngeen croisé. <laughs> ñii xaw na noo maa ngi lay gis ñu war ginaaw sëriñ ba nag naan ko boo waxul du baax weex sàll sëriñ nag dem raba fene da ngeen waroon dem fekk sëriñ ba dem Dubaay dem vacances ngeen xam nu leen def da ngeen a soof léegi loolu dooyu leen geneen ngeen mënatu leen kii ngeen di doxaan seeni élève doxanam kenn eh, da nga ko doxaan moo ko wax weddi woo yow yaa ko doxaan da nga ko doxaan doxaan moo tax nga jox ay fooy pour eh, sëñ bi bu ma léegi yow boo ko jox ay fooy mu am ba bu bu continuer ban ban ban ban ban liggéeykat lay doon. lii moo tax da ngay gis nit ci bureau du fa xam dara. boo indee CV fekk ko muy nelaw nga indi këyit pour toppatoo fekk muy wuy téléphone sa saar gi moo ko indi mais yow sa carrière c'est fini comme yow tu es un philosophe de cœur di doxaan xale yi jigéen si saal hmm. doo doo doxaan kenn te fini doo doo doxaan xulli doo doo doxaan nag yow sa ndawaay bi da ngaa bëggoo góor da nga koo tàmm yow sa ndawaay bii yéenay déchets toxiques yi yow kaay. ku jigéen ki laay ñam. yow yaa yàq sama àdduna. ma yi man nee na day jooy ak yow eh bëgg katu góor nga ah, ma dara yow booy dem kër kii dangay ree dangay doo jooy. caga bu rëy nga xoolal nga sopp xoolal nga sopp xool lii élève na ko jànge lii élève na ko jànge waaye romma sa tuñu ëppante yi ngay mel ni ku lokkay du ciment caga bi nga doon asa fut eh sama waay kaayo yow kaay grand eh, mère ndar ndar bu mag maa ngi sama le présenté eh, boo kii ngay waxal di muy am jàmm man boo ma waxee lay ray ba nga dee yow yow bi ngay jàngale école lan lan la waxoon lan moo doon seen devise yéen jàngale wala doxaan. mais ki nga doxaan yaa ko doxaan da nga ko doxaan. yow tiyee laa eh, eh, mbéfe tiyee laa pour di doxaan xale yi bu ñu bañee nga nga yow nga joxe walla al eh, jox ma lii jox ma lii comme yow tontu mooy sa liggéey dama cinq ans de yi xaar ma fa dama doo corriger doo corriger tiyee ree yow ci éducateur ay soos so soxor maa ni sama gaañaa ngi. bon yéen alhamdulilah ñibbi leen ba su